ñi nga xam ne comme ni ko ma waxee ñi amul programme amunu xalaat nax ak jéem a nax askan bi dem ci centre de vote yi ci élection locale yi di ci dogaalee askan bi naan leen kat ku votel Benno Bokk Yaakaar borom ñaari tur yi ngay défendre nangam sangam te président wax ci lu leer devant le président américain Barack Obama bu mu fi ñëwee en 2013 président wax ko ci kanamam devant le monde entier 2013 président waxaat ko bi fi président premier ministre Canada ñëwee motul ñaari at juste avant Covid la fi ñëw février 2020 président waxaat loolu ba mu leer naññ génn télé waxaat loolu mu mu jox dogal ministre yëpp ak tous les agents de l'État ku fi dem bitim réew ngay négocier ay convention wala mu nekk euh, euh, fële ca Genève wala mu nekk fële ca New York Nations Unies ak fu mu mënta doon fu nu waxee wax yooyu ñun nan cee raxasu ba mu set wecc nan yëkkati suñu loxo ñun duñu signé lool keroog bi président demee mooy réunion G7 fële ca Allemagne nga xam ne réew yi gën a fort ci adduna bi juróom-ñaari ñoo fa daje ak Union européenne ñu invité ko moom président la République bi gars yi def seen communiqué nangam sangam moom def leen ne communiqué boo xam ne loolu def ci am défendre yooyu da ci am ñun Sénégal duñ ko signé duñ ci ànd mu ànd ci rek ak Indonésie mais loolu ku wax loolu woo imaam yi wax ak ñoom loolu su loolu weesoo ci sunu code pénal article 319 ak article 319 bis ñu pénaliser loolu nekkum ci jàpp ngay def lu mel noonu di nga mën nga dem mën nga dem kaso at ba juróomi at mënoon la fa ko alamaan boo xam ne téeméer ñaar fukki junni la dem ba un million cinq cent mais yaa xay di kay xanaa loolu leer na donc askan bu nangu ku ñuy jéem a nax kokkatal ñeneen ñi suñu amul programme xamoon nu nuy def mais ñoom na ko wax mais ñun bu nangu askan bi bu nangu ku nu nax loolu danga ko fexaat mu leer wax nañ ko waxaat ko xanaa kay li des mooy ñu bind ko ci bidéew yeeg taf fu ne ci àdduna bi ci Sénégal bind ko bind ko ci loolu mais ñële ñoom xam na loolu mais dañ ciy profité rek di jéem a naxaate donc ñun ñii nag ñoo war a bañ loolu nan dem wax ak askan bi te sunu imaam yeeg sunu respon autorité yi képp koo gis parrain ku nekk war nga wax lu jëm ci loolu ci sa gox ak ci sa koñ wax li nga xam ne état bi lan mooy position am